أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ginnaaw bu nu tàmbalee ci turu yàlla tabaraka wa taala ñu ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di dellu siwaat ak yéen ci histoire yonent yàlla ibrahim alayhi salaatu wassalaam ñi ngi tolloon ci daawatu ibrahim alayhi salaam li qawmihi ubbaadil asnaami ibrahima woote gum doon woo ay mbokkam mbokkam yi nga xam ne ay jaamukatu xërëm lañu woon ibrahima tàmbali di leen woo woo leen jëme leen fan ci yoonu yàlla tabaraka wa taala borom bi tabaraka wa taala nettali ñu ci surati shuara aya 69 ibrahima man kay wax naa leen man saa yi may def dar su ma gisee ay nit di wax rek ma noppi noppi rek ñaar mënul ànd borom bi tabaraka wa taala mu ne ci suratu shu'ara aya 69 mu ne watlu alayhim nabaa ibrahim haadihi bidayatu qissatu ibrahim li mooy tàmbali nettali histoire ibrahim alayhi salaam borom bi ta nettali ñu ko ci suratu sora mu ne yonent yàlla muhammad uqsus alayhim ya muhammad xabara ibrahim yow yonent bi nettali li sa xeet ibrahima fu mu jaaroon ak ay mbokkam yonent bi nettalil say mbokk nettalil ñi la yàlla yónni nettali la waa àddina bi fan la ibrahima jaar ak ay mbokkam id qaala li abihi wa qawmihi ma tacbuduun keroog ba ibrahima ne ay mbokkam wax baayam baay yow yaak samay mbokk lan ngeen di jaamu te pourtant jamono bi ibrahima di laaj papaam ak ay mbokkam lan ngeen di jaamu hiina qaala li abihi wa ashiratihi ayu shay'in taabudun jamono bi ibrahima laaji ay mbokkam ne leen lan ngeen di jaamu saalahum maa ilmihi bi annahum yaabuduna al asnaam bi mu koy wax leer na ko ne ñi jaamunu yàlla ay xërëm la ñu jaamu waaye lu tax ibrahima laaj leen li yubayina lahum shafahati uqulihim fi ibadati ma la yanfa Ibrahima daf leen bëgg a won ne yéen kat yàlla daf leen a may xel mais xel yi xel bi utilisé wu leen ko ku yàlla may xel xel bi jëriñoo ko mooy doo jaamu xërëm ku jëriñoo sa xel doo jaamu xërëm kon soo doon càmbar aaye texte bi Ibrahima di laaj ay mbokkam lan ngeen di jaamu yow baay yaak samay mbokk lan ngeen di jaamu Ibrahima laaj leen laaj bi ngir lan ngir mu won leen ne seen xel mi day teguwul ci raay bi ndax ku am xel doo dem jël garab jëmbatal ko sa bopp di ko roose ba garab gi màgg nga yett ko def ko yàlla di ko jaamu benn ku am xel doo dem ut benn xeer yett ko ba mu rafet nga ñëw di ko jaamu ku am xel doo jaamu photo doo jaamu lam doo jaamu ndox doo jaamu nit doo jaamu rab yàlla rek ngay jaamu ku am xel moo tax mu ne leen ci jamono bi mu leen di laaj mu laaj leen laaju yeddeel ngir lan ngir seen xel yi mën a yëngatu ci jaamu gi ñuy jaamu loo xam ne amul njëriñ wa yuqimu alayhim alxujja waaye bokk na ci li tax Ibrahima laaj leen mooy pour mu am lay seen kaw pour mu mun a mu mun leen jàjj mun leen yedd moo tax mu laaj leen laaj bi mu leen laaj ba mu leen laajee ñoom lan lañ tontu mbokk yi alxuraan moo nu ko nettali ba tey ci suuratu Shu'ara ay 60 61 borom bi nee na Ibrahima ba mu laajee ay mbokkam ak baayam ne leen lan ngeen di jaamu qaalu na'budu asnaaman fa nazallu laha aakifiin qaalu tontu nañ ko ñoom mbokkam yi ñu ne ko naabudu asnaaman ñun de ay xërëm la ñuy jaamu te ñu ngi la yëgale fa nabqa muqimina ala ibadatiha la natrukuha ñun de dañuy sax di jaamu xërëm yi ci la ñuy dee duñ ko bàyyi mukk lii ñuy tontu Ibrahim est-ce que tey fii ci Sénégal amul ñu koy tontu ni la ñun lii nga ñu fekk da ngay sonn rek ñun ci la ñuy dee mënoo fexe bañ bàyyi ndax ñun lii leen fi fekk lii leen fekk sunuy maam di def lii leen fekk sunuy baay leen fekk waa réew mi kon ñun lii fa nazallu laha aakifiin duñu deñ di bóof di ko jaamu mënoo fexe bañ bàyyi da ngay sonn sa bopp rek naabudu asnaaman dañu jaamu xërëm fa nabqa muqimina ala ibadatiha la natrukuha dañuy sax di boof ci xërëm yi duñ ko bàyyi qaalu zalika ala sabilil ibtihaaji wal iftixaar xam nga tax ñu wax loolu ngir di ngand ngand léeg-léeg nga wax benn waay mais yow li ngay def nag mu mu tàng yëkkati dënnam di la wan ne man lii laay def bu la neexee bu la naqaree dañ ko wax ngir lan di ngand ngandalu ak di wone dañoo bew moo tax ñu ne ñoom dañuy bokkaale ba tas léeg-léeg nga dégg benn waaye buy bokkaale ji danaan dund dem dee dem kenn du ma teree dem dund dem dee dem du ngeen dégg lool moo tax démb dafa nuroog tey li ngeen dégg wax nitu Ibrahima di wax nitu tey yi moom la ñuy wax ndax réer ndax bew ndeysaan xoolal Ibrahima moom ñoom de day poser question ñuy tontu moo tax yàlla ne yow Muhammad nettalil nit ñi histoire Ibrahim xam nga bi ñu waxee loolu rek moom mënoon naa dem yoonam mu xam ne ñi alko nañ safara lañ jëm waaye Ibrahima taxaw qaala hal yasmaunakum is taduun waaye yéen xërëm yi est-ce que bu ngeen bu ngeen leen woowee ñoom dinañ leen dégg ah weñ gi nga takk est-ce que boo ko woowee dina la dégg photo bi nag garab gi nag bàmmeel bi nag est-ce que boo ci taxawee di ko woo dina la dégg xërëm bii nga taxaw di ko jaamu est-ce que boo ko woowee dina la dégg hal yasmaunakum is taduun qaala lahum ibrahim ala sabili tabkiit wa tawbiix ibrahima daf leen wax loolu ngir yedd leen hal yasmauna duaakum hina taljauna ilayhim biddua est-ce que bu ngeen leen doon ñaan di làqatu ci seen ginnaaw pour yàlla musal leen est-ce que xërëm yi dinañ dégg yamul foofu de aw yanfaunakum aw yadurruun waaw est-ce que xërëm yi dinañ leen jëriñ est-ce que dinañ leen lor ah day gis tey ku takk weñ gu ñuul wala mu takk pittaaw wala mu takk xaaw wala mu takk laar wala mu takk wala mu takk wala mu takk wala mu takk wala mu takk soo ko nee lii nag mu ne lii samay maam lii sama yaay lii sama baay lii sama lii sama léegi nag laaj ko lii hal yanfaunakum aw yadurrun est-ce que dina la jëriñ wala dina la lor lan mooy tontu bi ndeysaan coono gi ngeen di sonn di takk lii est-ce que am na ci benn njëriñ bu ci nekk aw yadfauna ankum mad madra est-ce que am na benn lor bu mu leen di puusal déglu leen gaa yi ñu ngay tontu de Ibrahima xam nga def leen laaj ne leen ndax lii ngeen di jaamu amal na leen njëriñ qaalu bal wajadna abaana kadhalika yafaluun ñu ne dañoo fekk suñuy baay di ko def rek ñu def ko gis nga qaalu bal wajadna abaana kadhalika yafaluun ñun dañoo fekk rek suñuy baay di ko def rek ñu def ko est-ce que loolu xel nangu na ko nga fekk sa baay di def lu bon rek nga ñëw def lu bon est-ce que loolu diine la loolu diine nanguwu ko kenn ci ñun warul fekk baayam wala yaayam mbaa maamam mbaa ay mbokkam nekk ci lu bon mu ñëw di leen rey ci lu bon lool kenn ci ñun amu ci droit ku mu mën a doon ci yow amoo droit fekk ko ci lu bon nga ko ci topp abadan gis nga alxuraan daf ñu wax ne sa papa ak sa yaay na nga leen topp lépp luñ la sant na nga ko def waaye bis buñ la waxee bokkaale yàlla nee na bañal taxawal ah buñ la santee loo xam ne amoo ci benn xam-xam wala ñu ne la bokkaalee rek yàlla wa in jahadaka ala an tushrika bii ma laysa laka bihi ilmun lu yàlla wax fala tutihuma ñoom ñaar li ñuy tedd mooy bu leen topp gis ngeen kon kenn ci ñun amul droit sa papa ñëw jël benn lam ne la takkal lam bi nga takk sa yaay dem benn di defi benn lam ne la takkal nga takk indi wëñ gu weex wëñ gu xonk wëñ gu ñuul ne la takkal nga takk indi benn xas ne la takkal nga takk indi benn béjjën ne la takkal nga takk wala kaañ dem fële nga bokkaale ji nga bëgg a dem kenn ci ñun amu ci droit Ibrahima ne leen lu tax ngeen di jaamu lii ñu ne wajadna abaana yaabuduun fa faalna mislahum ñun fekk nañ sunuy baay di ko jaamu rek di ko takk di ko naan ñun tam ñu def ko ibrahima arrêté wul de ba tey déglul moom ñoom yàlla nettali ñu ko ba tey ci suratu soora aya 75 76 qaala afaraaytum ma kuntum tacbuduun antum wa abaa'ukum al-aqdamuun qaala ibrahim afara'aytum haadhihi al-asnaam allati abadtumuuha min duuni illah antum wa abaa'ukum al-awwaluun ñu ne ah mu ne fa innahum aduwwun lii ila rabbil aalamiin fa innahum aduwwun lii illa rabbil rabbil aalamiin waaye yéen wax leen ma ma dama leen di laaj benn laaj xërëm yi seen baay yi di jaamu yéen ak seen baay yu jiitu yi ñu njëkk ñi xërëm yi ñu doon jaamu ñu ne ah Ibrahima ne xërëm yi yii ngeen di jaamu ak yu njëkk yi seen baay yi doon jaamu ñu ne ah mu ne yooyu yëpp samay noon lañ man yàlla rek laa gëm gëmuma leen ay noon laa leen def allahu akbar lii mooy lii moo tax yàlla mën nañu inna ibrahima kaana umma ibrahima rek bu ñu boolee àddina bi yëpp ci ngëm yàlla ibrahima moo leen ëppale ñëpp nag laa de bu ñu boolee àdduna bi yëpp seen ngëm ibrahima moo leen gën a dëgër moo tax yàlla ne ibrahima dong nation la ci iman inna ibrahima kaana umma ndax iman bu mu amoon moo tax yàlla ne nañ ko roy ci ngëm gu ñu war a gëm nañu toppandoo ibrahim mu ne man day yàlla rek fa inna haasihi al asnaam xërëm yi adduwun li samay noon lañ laa abuduhum duma leen jaamu walakin abudu llaha rabbal alamin fa huwa waliyi fi dunya wal axira man yàlla laa faral ci adduna ci alaxira yàlla laay faral duma ànd ak kenn mbokk yi jot na de li Ibrahima wax nii ñun ñëpp jot na ci ñun ñu jaamu yàlla rek ñu bàyyi jaamu xërëm ñun ñëpp laa wax jot na ci ñun ñu topp yàlla rek ñu bàyyi xërëm bàyyi ay bidaa bàyyi bokkaale bàyyi baaxu maam bàyyi xar baax tey nit sonal nit ñépp du diine li leen sonal du diine ay baax moo leen sonal ñun suñuy mbokk lii la ñuy def ñun ñun ñun ku nekk ak sa aada te diine soo ko xasee gëm aada amatu ci place lu dul aada bu baax bépp aada bu bon islam bu ñëwee da koy dindi rawatina nag bidaa ak shirk loolu moom l'islam musu cee d'accord l'islam musul rafet lu bidaa musul rafet lu shirk ndax baaxul day màbb diine Ibrahima ne leen man de yàlla rek laay jaamu borom aduna borom asamaan ak suuf moom laa mooy sama àndandoo moom laay faral aduna ak alaxira allazi xalaqani fa huwa yahdin yàlla mi ma bind moo may jubal allazi xalaqani yàlla mi ma bind huwa allazi mooy ki nga xam ne yahdini ila tariqi rachad la hazihi al asnaam man yàlla mi ma bind moo may orienté moo may jubal ci yoon bu jubbi waaye xërëm yi dara lañ ma dul defal tus xërëm lan la mënal nit ah photo lan la la mënal photo weñ nag xeer garab bàmmeel tus la mënul tus bàmmeel tukulóor yi dañuy wax àllaadu si na nafanno mu mataa koy hóore joomum kan mooy tukulóor fii mu traduiral ñu loolu dégg nga li mu wax de allaadu mun a béjjéen so tawen noo ina nafa bu fekkoon te nag mun na njëriñ
ummataa koy hoore joomum xaaral bi war na xaj kii fii fii sokkee ko ko mu njëriñ xaaral bu jóge béjjéen bu doon day jëriñ day jëriñ ci bopp bi mu jóge d'accord ngeen ci loolu ana xar mi lekk nañ ko ana yax yi seeñu nañ ko ana der bi ñu ngi koy jullee nga takk béjjén bi naan ku ma daal dee man de ku ma daal dee béjjén bii xam nga ne kii dof la ana fu mu nekkoon ana xar ba waaye léegi yow mi ko takk nag kon kay béjjén bi bu fekkoon ne am na ku muy musal kan lay musal xar mi mbaa nag bi mbaa mbaa mbaa yooyu gis fi ci dëkk bi ñu bari takk ay béjjén wala ay buntu kër ñu takk ci béjjén wala ay saal nga gis ci ngandum béjjën ñu def ci sagar bu xonq nag ay pitaaw soo duggee rek xanaa lii di moom ku fi dugg tey boo fi laalee dara rek béjjën bi dalay jàpp sàcc bi day ñëw sàcc leen saw ci béjjën bi dem yoonam béjjën bi amul njëriñ bokkaale baaxul yal nañu ci yàlla musal ixwaan yi ibrahima bokk na ci li mu wax mbokkam yi man de yàlla rek yàlla moomu nga xam ne moo ma bind fa huwa yahdin yàlla moo may jubal mbokk yi yàlla kese kese doy na wala doyul su la yàlla kese doyul dara dootu la doy gis nga loolu moo tax bokkaalekat loo ko wax def ko mu def ko soo ne benn benn waay ñëwoon ci yow ne la damaa bëgg a tukki nga ni ko waaw mun naa fexe nga tukki dafa am yu ma lay jox rek nga sangoo ko mbaa nga naan ko bàyyil ba guddi 4 heures du matin 3 heures du matin 1 heure du matin ba ñëpp tëdd ba mu leer na ñëpp tëdd na nga jël sa ànd bi nga simmee ko yaramu neen nga diwoo doomu taal bi waa ji bu guddee mu def ko boo ko ne woon demal ba ci mbedd mi nga sangu ci sëlëbe yoon nga def yaramu neen fexeel bu la kenn gis dina ko jéem a def boo ko ne woon naanal deret mu def ko moo tax keroog ma ne leen mbër yii ñii mbër yii di bëri suñ ci waxoon kenn soo bëggee daan ñëpp lekkal say dem àll ba dina ko lekk am na ci yenn combat yu nit di am lu la sëriñ bi wax def ko di nga ko def bu leen leen reyeen nit sax di nga rey nit bu leen woon naanal deret di nga ko naan te xam ngeen ne yii yëpp baaxul bokkaale la boobu rek doyoon na bëre baaxul mbokk yi Ibrahima yemul ci leen ne man yàlla laa gëm yàlla mi ma bind moo may jubal waaye mu ne leen wallazi huwa yutimuni wa yasqin yàllaay ki nga xam ne moo may lexal moo may jox ma lekk moo may jox ma naan loolu loolu nit ñi war nañ cee taxaw ñu bëri jàpp nañ ne seen kër-kër yi seen yëngatu seen am liggéey moo leen di jox lekk moo leen di jox naan ñu bëri loolu lañ jàpp jàpp ne waaye man am naa salaire sama kër dara du manqué gis nga ku mel noonu dootul am yaqiin ci yàlla ne yàllaa koy dundal loolu moo tax yaqiin am solo malgré ne lépp loo am gis nga Ibrahim moom mu ngi doon góorgóorlu mu ngi doon def lépp waaye dafa ne su feebaree yàlla moo koy faj su xiifee yàllaa koy jox lekk soo maree yàlla moo lay jox naan bi nga lekkee ba pare bu yàlla téye woon fii lekk bi mu bañ a dugg ñu togg ba mu ñor ginaar nga jël benn dànk rek mu tag fii du dem ci kaw du wàcc est-ce que di nga tal dina tala rees wala ba yàlla bàyyi ba mu dugg mu nekk ci biir di ko yëngal mu bëgg a rees du rees nga bëgg a dem àll ba yàlla mu ne du génn nga bëgg a tuur ndox yàlla mu ne du génn ndox mi nga bëgg a naan yàlla changé goût bi xoola banu Israël keroog ba yàlla changé seen goût ndox def ko deret mënatuñu naan beneen bi mooy yàlla su la ne maa lay jox lekk nga war a gëm ne yàlla moo lay jox lekk mais du sa poos lekk bi ngay lekk fu mu jóge ceeb bi fu mu jóge ci suuf dañ ko bay ku moom suuf si ku moom ndox mi ah waaw est-ce que bi nga ko jiyee yow yaa ko roose du da ngaa da ngaa sànni sa gerte dem ñibbi kenn gardé wu ko mu taw yaa ko tawal te xam nga li garaaw mooy gerte est-ce que xam ngeen ne yéen gerte lan moo ciy sax bakkan bi mooy sax bakkan bi gerte gi li muy ngande ngande ngande bakkan bi dong moo ci sax ñaari ñaar yooyu ñuy lekk ni te mu rëy après dañuy yàqu su su allahu akbar te ki koy ji bi mu ñëwee di gas suuf si dafa dugal jubantewul jubantewul bakkan bi ba mu nekk ba mu nekk kaw asamaan xoolal ndox mi bu ci doyee mu sax bu bu garab gi nee tëll génn rek da ngay gis mu ànd ak ñaari ñaari kubéer yi ko bakkan bi mooy sax da koy toj daal di génn ci kaw est-ce que yow yaa ko bënn mu génn wala yaa ko roose yaa ko màggal bu dee màngo yow yaa ci def suukar te añ bi nga doon togg pourtant yaa ko xorom kaani gi ku ko safal naajo bi ku ko lewetal ah bii boo ko lekkee mu lewet bii dafa saf bii forox bii wex bii neex te yëpp tusqaa bi ma in waahid yàlla nee na yëpp benn ndox laa leen roosee te bokkuñu ka na nañ jëf fi ñeenti baraada bii ñu def ci suukar bii ñu def ci kaani bii ñu def ci poobar bii ñu def ci lingom après ñu xiim bu nekk lu muy saf liñ ci def xoolal yi tusqaa bi ma in waahid yëpp lekk bi du benn te mën nga leen saxal ci benn place ci benn place di leen roose benn ndox mais lekk bi du nuroo ku def loolu kon yàlla moo ne leen man mi maa leen di lekkal du yéen seen bopp moo tax jullit ñi war a am am même garab gi ngay naan da ngay gis ku boppam metti looy njëkk a xalaat au lieu nga njëkk a xalaat sa borom def li yonent bi wax mocc sa bopp doog a naan wala diw da ngay njëkk rek yow sa bopp day metti rek restaurant mool c'est à mille bismillah bismillah mais avant loolu am na lu war a jiitu mooy nga dellu ci yàlla nga dellu ci yàlla yàlla mi la wax ne soo feebaree maa lay faj moo tax gis nga Ibrahim moom li ko yàlla wax suñu jàngee alxuraan dañuy gis ne li koy garab bi ko yàlla takkal jaadu na mu takkal ko ko Ibrahima nee na yàlla moo may jox ma lekk moo may jox ma naan huwa taala allazi yarzuquni attaam wa sharaab fa huwa alxaaliqu arrazaq allazi anzala almatar gis nga yàlla moomu tabaraka wa taala moo may jox ma lekk moo may jox ma naan mooy ki ma bind moo may wërsëgal moo wàcce taw bi wa axraja bihi anwaa athamaraat moom yàlla taw boobu wàcce ci la génnee mbooleemu fruit ay façon yu wuute rizqan lil ibaad pour ñan la mango pour an la pour ñan la pour jaam yàlla yi ah papaya pour ñan la pour jaam yàlla yi lekk gi yépp yàlla bind pour ñan la pour jaam yàlla yi ñépp yenn saa yi sax mu ne la mu ne ñu yéen la ak seeni rab yéen ak seeni rab yéen yéen a ko moom wali anaamikum boo lekkee banaana bi nga jox sa xar mu lekk xob bi ah boo lekkee gerte gi nga jox sa xar mu lekk ngooñ gi bu dee ku baax nga bu dee ku bon la nag day jël ngooñ bi jaay fàtte fas bi wala fàtte xar mi fas bi ko doon jàppale pour dem tool yenn saa yi mu fàtte ko jël lépp jaay du ko ci jox wàllam ibrahima ne leen wa isa maritu fa huwa yasfiin su ma feebaree sax yàllaa may faj wa isa asaabani almarad fa innahu la yaqdiru ala shifaai ahadun gayruhu su ma feebar dalee kenn munumaa faj ku dul yàlla yàlla moo may faj dafa am benn xale bu ndaw xale bu tuuti mu feebar papa ji yóbbu ko principal ñu koy jëlal deret pour xool lan moo ko jot xam nga xale rek ak yaramam ñu takk veine bi jël seen élastique takk loxo bi pour veine bi jóg ñu diw alcool xool daal di tàppal seen loxo yi daal di jël puso bi dugal affaire yi mënul dugg docteur bi dugalaat affaire yi mënul dugg mu bëgg a dugal troisième fois xale bi téye loxo bi ne ko docteur est-ce que wax nga bismillah docteur bi teg puso bi daal ne wooyu leen keneen mu faj seen malade bi papa ji ne ko lu mu la wax dëgg la est-ce que wax nga bismillah xale bu ndaw ba am juróom-ñaari at gis nga yépp yàlla la du doomu aadama moo tax doomu aadama yépp mu war ko bàyyi xel yàlla da ngay naan garab rek waaye yàlla mooy faj bi iznillah da ngay lekk rek yàlla mooy suuralaate bi iznillah da ngay wari liggéey rek yàlla mooy maye bi iznillah lépp ci yàlla la amul luy am lu dul ci kàttanu yàlla amul luy sotti lu dul ci kàttanu yàlla lay sottee bi iznillah lépp amul leen lu dul ci ndigalal yàlla la soo xamee loolu nag da ngay noppalu kon da ngay xam ne yëpp yàllaa ko moom lépp yàlla la nga bàyyi ko ci yàlla ibrahima ne leen wallazi yumiitunii summa yuhyiin yàlla moomu moo may rey yàlla moom moo may dundal gis nga pas-pas bi yi ibrahima wax yëpp pas-pas la su ma xiifee yàllaa may jox ma lekk su ma maree moo may jox ma naan est-ce que dootu nga dépendre ci nit ah su ma feebaree yàllaa may faj da di nga ragale ci fi dara yàllaa may dundal yàllaa may rey looy ragalati yëpp pas-pas la boo yaakaaree ne nit a la yor nit ki ngay jaamu boo yaakaaree ne boo feebaree nit moo lay faj nit kooku ngay jaamu boo yaakaaree ne sa bakkan bi ci loxo nit la nekk moo lay dundal moo lay rey su la meree nga dee moom ngay topp wa huwa taala almuhyi almumiit laa yaqdiru ala zalika ahadun siwaahu yàlla mooy dundale mooy rey kenn mënoo dundale mënoo rey ku dul yàlla tabaraka wa taala moom yàlla wallazi atmau an yaxfira li xatiati yawma ddin moom yàlla moom laa yaakaar ëllëg bés pénc bàkkaar yi ma def moom dong moo may jéggal amul kenn ku may jéggal ku dul moom ndax am na ku mën a jéggale ay bàkkaar ku dul yàlla borom bi daf ñuy wax ci quran ne wa man yaxfiru zunuba wa man yaxfiru zunuba illa allah ana kan mooy bale ay bàkkaar ku dul yàlla da ngay dëkk ak am na yenn suñuy dëkkandoo yoo xam ne bu ñu defee bàkkaar dañuy dem rek waa ji daal di raay seen bopp daal leen di saxal benn nooy bees xaw ma benn bonbon wala benn tàngal ne la jéggal nañ la say bàkkaar est-ce que xam ngeen li ma am na ñoo xam ne ñu ngi dëkk ak ñoom bu ñu defee bàkkaar dañuy dem ci seen kilifa diine ñu daal di toog kilifa bi raay bopp bi daal leen di saxal benn bonbon bu ñu lekkee moom ba mu jeex rek mu ne la baal nañ la sa bàkkaar nga génn dem fayuwaat ci islaam nag du loolu islaam moom yàlla rek mooy baale bàkkaar yonent bi sax mënul baale bàkkaar yàlla rek moo tax yàlla bi muy wax jéggalu leen kan la wax istaghfiru nabiyakum lu mu wax istaghfiru rabbakum jéggalu leen seen borom ku tooñ yàlla yàlla ngay jéggalu moo tax ibrahima ne moom yàlla moom laa yaakaar atma'u an yaghfira li khati'ati moom laa yaakaar mu jéggal ma samay bàkkaar yow ma diin bis penc arju min waasi'i rahmatihi yaakaar naa ci yàlla yërmandeem bu yaatu bi an yaghfira li zu- zambi mu jéggal ma samay bàkkaar yow mal xisaab wal jaza bis bi yàlla di atte di fay haysu yujazi al ibad bi amalihim bis bi nga xam ne yàlla dina taxawal jaam ñi di leen fay seeni jëf keroog yàlla dong laa yaakaar mu baal ma amul kenn ku ñu fa war a yaakaar ku dul yàlla mbokk yi wax ji ibrahima wax wa fihi taalimun lil umma an yastaghfiru min zunubihim wa yuqirru bi xataayaahum lii ibrahima wax day jàngal xeet wi ne day jàngal mbokk yi ne yàlla dong la ñu war a jéggulu seeni bàkkaar waaye dañoo war a reconnaître ne am nañ ay bàkkaar ñu jéggulu yàlla mais am na nit ñuy dox ñoo xam ne jàpp ñu ne ñoom am nañ bàkkaar te ñëpp am bàkkaar nag amul koo gis rek muy yëngatu rek lu dul am na bàkkaar est-ce que am na ko amul bàkkaar wax leen ma kan la wax leen ma ko amul bàkkaar Mhm. est-ce que am na ko amul bàkkaar amul ñëpp am bàkkaar kullu ibni aadama xataun wa xayrul xataaina tawaabin yonent bi nee na koo gis muy dox rek am na bàkkaar waaye xam nga kan moo gën a baax ci ñuy def bàkkaar mooy ñiy jéggalu abdullah ibnu mas'ud doon na wax ne mbokk mi mu doon àndal law alimtum zunubi la rajamtumuni bil xiyaari xatta al mawt su ngeen xamoon samay bàkkaar man abdullah ibnu mas'ud di ngeen ma sànni ay xeer ba ma dee abdullah ibnu mas'ud moo doon wax loolu su ngeen xamoon samay bàkkaar di ngeen ma dóor ay xeer ba ma dee est-ce que kooku yaakaar ngeen ne ay bàkkaaram war naa bëri koo xam ne yonent bi nee na ku bëgg a jàng alxuraan jàngal ci njànginam bu mu doon jàngee allahu akbar mu yéeg ci ñaari mu yéeg ci jabal benn garabu tàndarma sahaaba yi gis yeel yi di ko ree mu ne leen wallahi alazim ñaari yeel yii moo gën a dëgër montagne Uhud kookooy wax ne bu ngeen xamoon samay bakkaar di ngeen ma dóor ay xeer ba ma faatu ñëpp am bakkaar loolu la bëgg a jàngale ñëpp ku gën a baax nag ci ki am bakkaar mooy kiy jéggalu yàlla tabaraka wa taala yal na yàlla jéggal mbokk yi marra waahid bal istamarra fi daawatihim wa muhawaratihim marrat wa marrat wa ma zalika lam yastajibu ibrahima continue na ci façon bi di waaraate guddi ak bëccëg ay yooni yoon mbooleem façon waxin doxalin jëfin ibrahima jéem na ko waaye falam yastajibu wuyu si wuñu waaye moom day loolu yëpp day découragé wul de continué na ba benn bis mu ne leen yéen xam naa lu tax ngeen bañ a jaamu yàlla ñu ne ko lu tax mu ne xërëm yi la waaye bis a ngi ñëw xërëm yëpp dinaa leen rajaxe danaa ko toj benn par benn dara ngeen ci dul man ñu ne ko baax na ba boobu mu ne leen baax na ba boobu Ibrahima tëkku leen yàlla nettali ñu ko ci suratu Shu'ara ba tey aya 92 82 ibrahima ne leen wallahi wa tallahi la akidanna asnaamakum baada an tuwallu mudbirin wa tallahi giñ naa ci màggaayu yàlla la akidanna asnaamakum dinaa fexeel seen yàlla yi dinaa leen rajaxe dinaa leen toj bisa ngi ñëw di ngeen xam ne yàlla yi duñu dara duñu tus sa aksiru tilkal asnaam dinaa mokkal xërëm yi toj ko allazi tazamuuna annaha aliha xërëm yi ngeen naan yàlla la bisa ngi ñëw yëpp dinaa ko toj xam ngeen ibrahima lu mu ci jublu ngir toj ko lan la ci jublu ngir tooñ tooñ la ci jublu lan la ci jublu ngir ma wan leen annaha la tanfa wala tadur ngir ma wan leen ne du jëriñ du lor wala tastatiu hatta an tudafia nafsaha dinaa leen wan ne xërëm yi mënuñu sax défendre seen bopp hatta tudaafi an nafsiha seen bopp sax ñoom seen bopp ñoom xërëm yii mënuñu défendre seen bopp am na benn mbokk bu fekkoon benn ngandum maami photo seen saal mu dem luqati bëdi ay keroog ay histoire boobu keroog kilifa gu mag mu dem luqati bëti yaay ji ne ko wallahi kii bu doon dund nii nga koy def yéeféer bi nga doon yow kii boo ko jekkoon muy dund ni nga koy def yow ku la joxoon paaka nga rendi ko mais histoire boobu keroog pour ñu fay ko garaaw na trop waaye loolu yëpp daf leen bëggoon won ne rek lii amul njëriñ moo tax doomu aadama dafa war a mooy tandiku lépp loo xam ne du ko amal njëriñ mbokk yi ibrahima alayhi salaam nee na leen dinaa toj xërëm yi pour ma wan leen ne xërëm yi amuñu njëriñ munul dara wa haa huwa alayhi salaam yuhattimu asnaamahum mu ngi nii di toj xërëm yi ñoom dañoo amoon benn aada aada bi mooy dañuy génn am nañ benn fête bu ñuy préparer fête bi annuelle la at mu nekk benn yoon fête bu mag a mag la dañ koy waajal waaye balaa ñuy dem dañuy génne ay lekk yu baree bari ku nekk da ngay génne sa lekk ñu indi ko ci jaamukaayu xërëm bi ñu bàyyi ko fa ñu génn dem ca àll ba ca fête ba suñu dellusee ñu ne yàlla yi def nañ ci lekk yi barke léegi nag ku nekk jël sa lekk toog lekk Ibrahima bàyyi leen ba ñu dajaloo ba yóbbu seeni lekk daal di jël seeni bagage génn dem ca seen feet ba ñu ñëw ne ko Ibrahima nañ dem mu ne leen man demuma damaa feebar demuma de sàkku nañ ci moom ne ko nañ dem de talabu min sayidina ibrahima alayhi salam an yazhaba maahum li yusharikahum fi hadha al id fa rafada an yazhaba maahum wa qala inni sakhim ay marid ata la yazhab maahum ibrahima kañ dem lii feetu maam ñi la feetu mag yi la feetu nangam nangam nañ dem mu ne leen demuma lu tax dama feebar daf leen wax loolu ngir lan ah ngir mën a toj yàlla yi gis ngeen yowmal xiyaam bu nit ñaamee jafe-jafe taxawaay bi metti nit ñëpp sonn dañuy daw dem ci nuux ne ko nuux dimbali ñu mu ne leen sam bopp laatal ñu ne yow yow nuux yow ulul azmi mina rusul yow sayxul mursalin nga naan sa bopp nga tal yow lan nga def bay tal sa bopp mu ne maa waxoon yàlla ne rey monde bi yëpp bu mu fi bàyyi kenn rabbi laa tazar alal ard minal kaafirina dayyaaran man loolu laay lijjanti jóg leen fi gars yi daal ñu ne ni ñuy def mu ne dañ leen ci Ibrahima ba xam ñu ñëw ci Ibrahima Ibrahima ne eh man damaa fenoon benn fen gis ngeen mi ngi nii inni saqim ñenn ñi ne moo tojoon xërëm yi ba pare ñu laaj ko mu ne bal faalahu kabiruhum haza fen boobu laay lijjanti jóge leen fi ma kenn dama est-ce que ci ñoom yooyu noonu ay fen la est-ce que yooyu bàkkaar la waaye xoolal ñoom ñu ne ñuy def mu ne dem leen ci Moussa Moussa ne reyoon naa nit loolu laay lijjanti fekkoon na ñaar di xeex mu leen di àtte ba ma kenn ki rek mu daanu dee ñu ne ni ñuy def dem leen ci Isa gars yi daw dem ci Isa ne man ñu doon wax yàlla laa maag sama yaay taluma leen ni ñuy def mu ne dem leen ci Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi mu déggee loolu mu ne ana laha maa ko moom ana laha loolu nag ngeen wax maa ko yelloo maa ko moom bi gars yi ñëwee wax ba pare mu ne leen xaar leen ma mu ñëw mu ñëw sujjóot ci kanamu borom bi yonent bi ne ko yàlla ne ko irfa raasaka yëkkatil sa bopp tey du bisu sujjóot tey julli amul wasal tuta wasfa tusfa laajal ñu jox la rammul ah gis nga de bi ñu waxee lool moom waxul dem leen ci diw dem leen ci diw dane maa ko moom lu nekk dañ koy jox ku ko moom moom mooy borom mbir mi kon ku toppal ci ginnaawam rek am problème ibrahima ñu ne ko kaañ demu ne dama feebar wa zahaba ahlul madina li haza al ihtifal waa dëkk bi yëpp génn dem ci feet boobu wa asba al madina xaaliya dëkk bi yëpp vide ah sénégal yenn saa yi dañuy am bis yoo xam ne dëkk bi day vide doo gis kaan kaan waxuma sax ñuy dem ci ay affaire kii jaamu ya mais bëri bëri bu mëri di bëri mbedd mi doo gis kenn kenn kenn kenn kenn kuñ fii rey kenn du génn bëri rek bëri wala football da ngay gis kenn du génn ñëpp toog da ngay gis sax nit ñi di teel a wàcc wala ku ne non tey kenn du liggéey wala une heure rek ñëpp ñibbi kon yéen bu ngeen déggee ne gars yi dem nañ feetu dëkk bi yëpp kenn nekk ko yéen war ngeen koo xam ndax Sénégal dina may bis yoo xam ne dëkk bi kenn du fi nekk bu la neexee sax nga lal ci mbedd mi tëdd kenn du la def dara ndax du ñii defaate dara duñ fi nekk dañuy dem fa nit ñi nekk ndeysaan Ibrahima ba mu bàyyi ba dëkk bi wéet kenn nekkatu fi ñépp dem nañ ci seen caaxaan yi yàlla di ñu nettali ci suratu safaat aya 91 mu ne raaga ila alihatihim ay zahaba ilayha musri'an ndeysaan ibrahima gaawantu rek daal dem ci yàlla yor yor goppam xam ngeen gopp gopp xam ngeen ko ah mooy lan mooy loolu ñuy yettee mu am bant ak weñ sémmiñ loolu la yor moom ibrahim goppam la jël rek nëbbatu rek daal di waaxu rek song yàlla yi fa wajada fa wajadaha fi makanin kabir mu fekk yàlla yi fañ leen teg ni mu yaatoo ni mu rée bi mu ñëwee lu mu njëkk a def faqad wada'u bayna aydihim anwa'an min al at'ima qurbanan ilayha mu fekk yàlla yi ñu ngi teg ay siwo raisin siwo banaana ay paanu mango paanu pom ginaar yi yàpp yi sandwich mburu mayonnaise bifteck yaasa lépp mu fekk gaa yi teg la ilaha illallah ku nekk rek indi nga sa lekk rek pour boo ñibbisee yàlla bi ñaanal la ci ba mu fees barke rek nga lekk Ibrahima bi mu ñëw dugg si mu gis lekk yi mu ne yàlla yi allah taakuluun du ngeen lekk yéen yàlla yi lekk leen lii ba suur yàlla yi ni xujj naan ko nii mu ne leen lekk leen yàlla yi ne nii rek di ko xool mu ne waaw maa lakum laa tantiqun waaye yéen waxuma ne maa ngi leen di wax lekk leen lekk leen mais may wax ak yéen du ngeen ma tont maa lakum laa tantiqun lu tax lu tax du ngeen dégg du ngeen gis du ngeen tont allahu akbar waaye lii yëpp lan la ci ibrahima bëgg a wone ah mooy pour nit ñi xalaat xoola yàlla boo xam bu ñu ko nee lekkal nii lay def ñu ne ko naanal mu taxaw rek nga ne ko yow xa dangaa suur mu ne nii rek yow dangaa mar loola jot mu ne nii rek est-ce que loolu yàlla la yàlla mu ne faraaga alayhim darban bil yamin li annaha aqwa wa abtas wa ashra wa ahqar fa kasaraha bi qudumin fi yadihi kama qaala taala lekk leen lekkuñ naan leen naanuñu xanaa yéen du ngeen wax tontuwuñ mu commencé ci ndaw yi di dóor sémmiñ bi affaire yi di exploser muy dóor ñuy exploser muy dóor ñuy exploser yàlla mu ne fa jaalahum juzazan xutaaman kasaraha kullaha mu def ko ay saami saam daggit daggit bopp yàlla nekk fee tànk nekk fee dënn nekk fee loxo nekk fee daggit daggit la ko def bu mu dóor mu daanu rek mu fekk la fa bala mu lay bàyyi rek saam la ñetti saam qila innahu wadaa qudum fi yadihi alkabir bi mu defee loolu ba pare nag mu gis punkal bi gën a ngand ci jaamukaayu xërëm bi yàlla bi ëpp doole gën a ngand gën a njool gën a pataa gën cee ngand bopp mu ñëw wékkal ko sémmiñ bi nag waaw dem ñibbi waa dëkk ba feetu nañ ba pare ñu delsiwaat ci dëkk bi waaye jëmuñu seen kër de fan lañ jëm fan lañ jëm lu tax ñu jëm ci xërëm ya ndax lekk yañ fa dencoon ñan leen dem jëli suñu lekk nag fi mu nekk nii yàlla def nañ ci barke ku nekk fëxër fëxër ñëw buñ nee tëll rek ñu am choc am mbetteel ku nekk xulli bu talatuñ léegi lekk yi ñu am mbetteel ñoom ñëpp ku ñëw rek am mbetteel waaw yàlla yu daan yàlla yu ñu toj yàlla yu seen tànk yi tasaaroo ah lii de doy na waar ponkal mi moom mbaadu moom moo dóor yàlla yu ndaw yi ah ñi ne yooyu yëg ba li ngay wax yow kii xam nga ne du yëngatu nga ne moom moo dóor yàlla yu ndaw yi incha allah mbokk yi fii la ñuy yem ba samedi bi di ñëw incha allah salaamaaleykum